mu ngi noonu xam naa ne suba ak jàmm dinañ ñëw sax ci kàddu Ousmane Sonko yi mu yëkkati parce que am na lu mu joxaat bi baaraamu tuuma euh, président Sall ci xew yëpp ak euh, décceek xalifa euh, mi ñuy tuumaal ci mbir yi Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu dañu bàyyi ba suba Seydou Jamil fay nee na ñamale gi am na solo jaajëf Seydou alaaji kon ñu dem ba Touba. ñu dem ba bopp tali xool waa ji lan la fa dund. bopp tali waaw bopp tali waa macha allah. waaw oto boobu ma la am waaye wande ni mu demee laa la bëgg na expliquer. oto bi daal euh, maa ngi dem ba euh, tali APS bi tali bi jëm oto tali bi jëm euh, APS ba station station station bu station bi ngay njëkk a jot boo génnee station bi ngay njëkk a jot boobu laa jàdd ma jël gasoil après ma avancé ba ca kanam taxaw di wuyu téléphone ma avancé ba ca ma mel ni ku jëm ci APS ba ma avancé ba noonu ma taxaw fii arrêt biis yi rek tata yi rek bi ma taxawee may wuyu téléphone am lu ma nan rek la ma leen wuyu ma leen wuyu bi ma wuyoo téléphone ba pare bi ma maa ngi gis ko ñëw droite taxaw sama wet quoi waaw bi ma wuyoo ba pare nag mu ñëw mu avancé ndànk jéggi tali bi moom mu sama beneen côté bi mu jéggi bi ñëw ci man ni ma sawaa ma ne ko ma tijjil porte bi ma ne ko yow yaay kan ba tax may tijji port bi mu ne ma man la Safinatul Amaan ma ne ko noonu moom boo doonee Safinatul Amaan ni ngay ñëwee ci man yor sa yor sa jaas yi ci la roccee mbar mi nag quoi tàllal tàllal ma ko ma ne mu ne ma may du may ma yàqu ko nii ne ko ah kon de di nga ko yàqu noonu noonu bi ma fermé verre yëpp boo fekk na sax fermé gu ma verre yëpp ba mu sës ci la bés bi tam yéegi verre yëpp ba mu sës rek mu dóor jaas ci kanam. may waxaan mu duuraat beneen ma ma taal oto bi départ ma déparé nag mu duuraat yeneen ñaari jaasi si ginnaaw xam nga foofu ma ni ma dafa xaw a jóg yéeg yéeg ci trottoir bi lu bari pour bañ ci kaw tali bi ko léegi ni ma wàccee nag ma wàccee wàccewu ma doole quoi ma wàcce ndànk moo tax sax mu dabaat oto bi pour mën ko dóor waaw ci la dóorewaat jaas ji dóoraat léegi nag man ma dem ba ca tournal ba na beneen tournal bu nekk ca kanam boo boo mel ne ku jëm apiage ba ma tourné daw ndànk mu dem jël otoom daw topp ci man jël oto bi daw topp ci man oto bi daw topp ci ñu dem bay agsi ci kii bi tata bi taxaw sama kanam mënuma dem ko mu ñëw agsi sama kanam tëj foofu noonu bëgg a bëgg a dóoraat ci laa jaare ci seet diggante moom nag ak ak fi mu taxaw diggante tali bi ak moom fi fi diggante bi mu gaare tali bi daa daa galañ tali bi bàyyi espace bu ndaw nag diggante boobu laa jaar ma dawaat ndànk rek mu waat ci man dawaat ndànk mu topp ci man ba ba egg ci ba egsi ci kii bi nu mu tudd ba waat ci tali bi jëm bi jëm kii bi tali bi jëm aloom nga mel ni ku jëm kër sawaay rek man man man moom gendarmerie rek laa laa defan direct jàddaatuma ci station mu defuma dara ma jàdd mu continuer tout droit mu topp ci man topp ci man topp ci man ba ci gaag ma jàdd benn kaar maa ngi dox seen ginnaaw ma profité bi ma gisee mu jàdd ma profité dugg gendarme bi taxaw ci poste bi bunt bi mu arrêté ko léegi bi mu ko arrêté saa yi taxaw ma expliqué ko sant ma mu ni ko jaar si la yor ak yooyu soo ay ni ko wàccal wartu ni ko wàccal léegi ni mu gaaree baaxul sant ma bi di wax naan ko gaaree nii rek mu bëgg a départ mu bëgg a daw gaa yi ni ko noonu wàccal oto bi noonu nag la wàcc oto bi ba yàlla def ñu jàpp yomb alaaji mi ngi noonu <clears throat> muy euh, insécurité boo xam ne dafa am foofu foofule euh, ndax waa ji ni mu waxee xam naa ni mën naa am daa sàcc oto safinatul amaan sama jàngat la rek mën naa am sax ma juum mën naa am mu sàcc oto jàmbur di ci def ab ñaawteef comme ni nga xam ne noonu la amee woon benn moto Tuubaa ci kanam bu ñu sàccoon fan yële da ca def yi ñaawteef ba gars yi mujj nañu filmer ni moto ba am na fu ñu ko gis. mi ngi nii Assane envoyé na ma ko jor nañ ko ay jaasi ba xam naa ne oto bi moom faaw mu changé parabrise kanam ak ci ginnaaw alaaji ban jàngat nga def ci élément bi. waa xam nga <coughs> réew mi moom. Euh, sécurité moom war nañ ko xoolaat bu baax. parce oh. xam nga tamit wax dëgg fa yàlla bu ñu xoolee loolu du tey la njëkk. Uh-huh. Sénégal gis nañ fi foo médecin. <coughs> gis nañ fi faux gendarme. waaw gis nañ fi foo douanier. Uh-huh. ñëpp di taxaw ne lii lañ kon bu ñu gisee foo Safinatul Amaan ak faux <laughs> faux Touba ca kanam. waaw loolu bu ñu bett parce <laughs> ñële. nga xamante bii. ñoom lañ mën a infiltrer ñi nga xam ñoo yor kaaraange gi ah. <laughs> ñoom lañ mën a infiltrer ba nit nekk ko pendant juróom-ñaari at. waaw doonub douanier. Eh, di te ñoo yor sécurité kii comprendre nga <laughs> te mënuñu koo xam. kon nag nit ku ñëw tamit daal di ne parce que ay faay la rek ah. ñoo xam ni. Eh, ci ay faay rek dañuy profité rek. daal mais waajee des ak ceetaanam bari na de. allah seet xam ni. gars yi am na fu ñuy nelaw rek ñu ne waaj waajee ak ceetaan ak ceetaanam dafa bari. ak ceetaanam ku yor ku yor jaasi topp la foo taxaw mu caw sa oto waaw mais alaaji bul jël jaasi ñu ne kii mu wutal mais wutalu yet alaaji nooy wutee yet boo waa ji fi mu wax nii fi ñu ko agressé foofu moom ab àll ak mbooy la. waaw léegi waa ji bu droité woon rek mën naa amoo yat wala lu baax yow yow nag da doon rey waa <laughs> nag yow yow yow yow mii bu doon yow la ñu faat la da ngay xar waa jaasi la yor alaaji topp la foo taxaw mu caw oto bi. waaw ngir ni may sa vingt amaan. waaw danaa fexe fu bu ma dawalee sama oto ba am fu ma gaaree dinaa wutu yet. déedéet. alaaji yow lii waa ji def lii mooy xel. buy daw jàpp nañ ko wala jàpp. jàpp nañ ko waaw loolu kañ mooy xel kii kañ borom xel la. waaye bala ma ko yut yoon dinaa ko làppali. yaa ko man mooy làpp <laughs> ah li waa ji doon def xoolal waa ji day dañ de bërët sàccee. waaw lekk sa waaye départ. waaw fër waay dëgg dafa gaaw. waaw sàcc bi tourné gis ni benn waaye doon ko topp ndekete moom daf li mu rawee gars yi dafa bari li mu rawee ñi doon wax sàcce <laughs> sàcc bi tourné na ko yow tey rek ma. tourné rek sa waay dëpp. xanaa <laughs> ah, gën a gaaw ñu doon dàq. waaw dàq erreur la. d'accord koy dàq sàcc nandite ah. maa nga koy dàq. kon waa ji ni mu def moom mooy mooy xel kon jiitu yow te amoo doole. waaw topp sàcc ba yenn xel yi. <laughs> sàcc bi nekk ponkal sàcc boobu dafa tourné.